Éducation sur Cine TV. Santé sur Cine TV. L'actualité sur Cine TV. Politique sur Cine TV. Sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. C'est ay qui Cine TV marie ministre de la Santé et de l'Action sociale, Madame Senabou gouverneur de la région de Fadik, Mesdames et Messieurs, chers amis de Fadik, c'est un grand plaisir pour moi de me présenter à la cérémonie de lancement du projet de l'élimination de la cécité causée par la cataracte dans la région de Fadik. Au nom de l'ambassade, je tiens d'abord à remercier la Fondation GX pour leur travail diligent, ainsi que le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le Centre hospitalier régional de Fatigue et les collectivités territoriales de la région de Fatigue pour leur soutien constant et ponctuel, sans lequel ce projet ne saurait démarrer si rapidement. Je salue également l'équipe médicale chinoise qui vient de loin pour leur professionnalisme et leur dévouement à l'amitié de nos deux peuples et au bien-être de l'humanité. La coopération dans le domaine de la santé occupe une place prépondérante dans les relations bilatérales sino-sénégalaises. La Chine est un partenaire majeur de la santé du Sénégal grâce à nos collaborations de façon continue et de 12 azimuts, telles que la construction d'hôpitaux, l'envoi des équipes médicales, les dons de vaccins, l'organisation des cliniques itinérantes, etc. Au cours des 40 dernières années, 19 missions médicales composées de plus de 300 médecins ont fourni des soins médicaux à près de 2 millions de patients sénégalais. Dévouées et désintéressés, elles ont effectué plus de 50 000 interventions chirurgicales et ont organisé des consultations gratuites dans diverses régions, contribuant à l'amélioration du bien-être des Sénégalais et à la garantie de la qualité des services médicaux locaux. De plus, l'hôpital mère-enfant de Djamdjadjo et le ministère de la Santé bénéficient des biens médicaux et des équipements numériques fournis par la Chine. L'hôpital pour enfants de Djamdjanjo a établi un mécanisme de jumelage avec l'hôpital provincial de Fujian. tant des hauts et des bas, la Chine est toujours en, solidarité avec le Sénégal. Pendant la période de la pandémie de Covid-19, nous avons fait don de plus de 1,6 million de doses de vaccins Sinopharm au Sénégal pour contribuer à la lutte du Sénégal contre la pandémie. Cette année marque le dixième anniversaire de l'initiative Ceinture et Route, qui poursuit le principe d'ample consultation, de contribution conjointe et de bénéfices partagés. Le projet de l'élimination de la cécité causée par la cataracte de la Fondation GX illustre concrètement le principe de partage. La Fondation GX, en tant qu'organisation internationale non gouvernementale, collabore avec les pays partenaires de Ceinture et Route pour mettre en œuvre des projets humanitaires. Les coopérations civiles comme gouvernementales Contribuer à la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Je suis convaincu que l'initiative de la Fondation EX au Sénégal ne, ne fera qu'apporter des bienfaits aux Sénégalaises et Sénégalais et renforcer la compréhension mutuelle entre nos deux peuples. Mesdames et Messieurs, la Chine et le Sénégal entretiennent des relations bilatérales profondes et fructueuses. Le 22 août, le président Xi Jinping a rencontré son homologue sénégalais Macky Sall lors du sommet des dirigeants des pays du BRICS à Johannesburg. Le président Xi a souligné que le Sénégal est un partenaire important de la Chine en Afrique et a exprimé sa volonté de renforcer la coopération dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, des infrastructures, de l'exploitation des ressources humaines. Sous l'égide de nos deux dirigeants, les relations sino-sénégalaises sont aujourd'hui plus fructueuse et plus dynamique. Le consensus entre les deux chefs d'État y a insufflé une nouvelle dynamique en clarifiant les priorités et les points saillants de notre coopération pragmatique et en fixant le cap pour les étapes suivantes. La coopération dans le domaine de la santé est l'un des axes les plus importants de coopération sino-sénégalaise. Dans l'espoir que ce projet de la Fondation GX apportera de nouvelles opportunités de coopération et contribuera à la compréhension mutuelle entre les Chinois et les Sénégalais, je souhaite un plein succès du projet et espère que la coopération sino-sénégalaise continuera de progresser et d'aboutir à de nouveaux fleurons. Je vous remercie. Je euh, docteur marie euh, ministre de la Santé et de l'Action sociale. bi nga xam ne tey moo ñëw yendu si Fatick ngir euh, waxtaan ak askan wi ci lépp lu jëm ci euh, xeex jàngoro yi nga xam ne mën na indi euh, nit ki dootul gis ñu naan dafa gumba wala mu indi gis-gis bu wàññeeku nit ki dootul gis gis bu leer rawatina nag ci biir àdduna sëpp ñu ne xeex boobu ren dakantal bi mooy fexeel sopal say say bët ca ngay liggéeyee buñ ko waxé euh sopp say beut fonk say beut moy euh fonk sa bop euh fonk sa bop say beut fi ngay liggéeyé moy gëna xam sa liggéey gëna gis sa liggéey gën ko rañé ngir nga gëna mëna liggéey ndax liggéey bobu gëna euh, jur euh euh njëriñ lool motax euh ñu né euh waxtaan bi ci lool la jëm waaye nak jëf mo wax madame le ministre de la santé action sociale indi mandarga bi nga xamné tay mo woné né Euh, boobu ak léegi ëpp na at président de la république son excellence monsieur Bakissal, Sall dafa may ministère de la santé et de l'action sociale ay camion mel nii bi nekk suñu ginnaaw wala suma ginnaaw camion la boo xam ne ci biir euh, bloc buy opéré bët moo ci nekk euh, lan moo tax def ko dañoo bëgg dëkk yi nga ne hôpital comme Fatick ñi dëkk ci wetu hôpital bi dem biir hôpital ñu opérer leen fofu bu fekké dañu la war opérer. opéré ñi nga xamné ne dëkk fu sori hôpital président de la république néna ministre Euh, fexeel dox bi nit yi di dox euh, ngir dem faju euh, distance bi na wàññeeku camion bi léegi mooy jóg dem fekki nit ñi fañ dëkk boo duggee si biir camion bi néeg bi ngay njëkk a jot mooy fi ñu lay xoolee nemmeeku ban xeetu feebaru bët nga am lu néeg bi mooy fi ñu lay opéré bu fekkee dañ war a opéré ñetteelu néeg bi mooy bu ñu la pare fi ñu lay tëral ba nga noppaleeku ba nga yeewu ba delluwaat ci sa kattan balaa ñu lay bay nga ñibbi kon fi ñu naan euh, fonkal say bët ca fa ngay liggéeyee euh, ministère de la santé ne kaay leen nag fii ñu xool leen euh, faj leen ndax ku ci amoon jafe-jafe nga mën a dellu ca mu gën a am doole. ci biir loolu nag ministère de la santé itam di rafetlu li nga xam ne ay xaritu réewum Sénégal ñoo ñoo koy jàppale ndax liggéey boobu président de la République rëdd liggéey boobu gën a yaatu si biir Sénégal ku nekk fa nga dëkk nga mën see jot. rawatina itam ne euh, liggéey boobu li koy gën a may doole mooy sénégalais bu nekk xam ne mën na moytu cataracte te mën na moytu trachome bi ñaari feebar yi nga xam ne ñoo gën a bëri li ñu indi gumba ak gis-gis wàññeeku ku nekk fa nga dëkk ak fa ngay liggéeyee am na ni koy moytoo ba la jot wala bu la jotee ñu gaaw koo gis gaaw koo faj bu soobee yàlla euh, tey dañoo limb ne gën gaa néew ñi nga xam ne ñaaw am nañ njort ne am nañu euh, dañoo gumba wala seen gis dafa wàññeeku gën gaa néew Euh, ñu ngi koy xayma ci lu tolloog euh, téeméeri junni ak juróom benn fukk ak juróom xayma la nag waaye dafa am solo ñu won ak wax ak askan bi ne ñun xam nañu feebar bi gis nañ ko ci ay nit ba tax na ku nekk ci ñun na xool boppam est-ce que amul gis-gis bu wàññeeku est-ce que buy dox dina dox dox bu jub est-ce que bu taxawee du gaaw a miir est-ce que duy faral di am bopp buy métti est-ce que du am li ñu naan malaise ak yeneen xeetu euh, mandarga yoo xam ne léeg-léeg gis-gis bu wàññeeku yoon bi yóbbu ci gumba léeg-léeg mooy wone ne euh, moo tax nit ki boppam di métti wala muy miir wala suy xool du leer euh, bu nekkee élève bi bu nekkee ndongo daara bi bu nekkee liggéeykat bi fépp fu mu mën a fu ko liggéey boobu mu mën a fekk. moo tax xayma boobu am solo bëgg naa loolu sax ci li nga ma may ma yëgal waa Sénégal ne ñun xayma nañu li feebar bi mu ngi fii biir Sénégal. mën nañ koo gëstu gis ko waaye mën nañ ko faj ba mu wër. Fatick daanaka dafa mel ak yeneen euh, fukki diwaan ak ñett parce que Sénégal fukki diwaan ak ñeent la euh, lim boobu ñu génnee mooy Sénégal bépp euh, ñu ñu wane ko ñu siiwal ko su ko defee ñëpp ñu dëkk Fatick génn dem kër docteur ñu xool leen ñëpp ñu dëkk Kaolack Diourbel Tambacounda Matam Saint-Louis maanaam foo mu di dëkk demal poste de santé demal centre de santé. demal hôpital demal kii kër docteur bi la gën a jege ñu njëkk laa xool xam lan nga am ñaareel bi ci biir ñi am feebar bi am na ñoo xam ne dañ leen a war a opérer am na ñoo xam ne jarul opérer mën nañu faj yeneen pexe kon Fatick ak yeneen diwaan yi jàpp ne feebar baa ngi fi euh, li mu euh, laal ci ay nit euh, lim bi xaw na bëri waaye Sénégal ci ministère de la santé et sociale mën na koo gëstu mën na koo faj. waaw kooku moom mën naa wax waaw ma njëkkee poste de santé. poste de santé commune boo dugg biir Sénégal tey am na waxuma benn poste de santé de waaye am na ay poste de santé infirmier sage femme ak yeneen euh, waa Kër Docteur liggéey jàngal nañ leen loo xam ne yéen sax su ma leen ko waxee euh, di ngeen xam ne wax dëgg <laughs> euh, yomb naa seetlu bu ñëwee ci yow naan man sa bopp day faral di métti xam nga di nga xool tension bi di nga xool ndax nelaw na di nga xool ndax am na jàmm këram waaye bul fatee xool bët yi loolu poste de santé yëpp xam nañ ko te ñu koy def ñaareel bi bu nit amee jabet ñëw ci post de santé bi ndax ñu xool ko infirmier sage-femme ñiy liggéey poste de santé xam nañu diabète mën na indi gumba mën na indi gis-gis buy wàññeeku ñetteel bi bët bu xonq xam nga olof Njaay sax defe diw bëtam dafa xonq maanaam su amee lu ko naqaree tey bu nit ñëwee biir poste de santé ndax dafa am benn bët bu xonq wala ñaari bët yu xonq infirmier bi xam na bu baax ne war na xool ndax lii du katarat buy waaj ndax li du trachome maanaam ban xeetu jàngoro bët la su ko mënee faj foofu ci ay tuufaay mu def ko su ko mënee faj foofu def koy bindal kayit ne ko demal centre de santé wala demal hôpital foofu nga xam ne am na jumtuwaay yu gën a kawe yu gën a xereñ su ko defee ñu mën a euh, gën a xam feebar bi waaye itam ñu gën ko mën a faj ci nu mu gën a teelee. Euh, président de la république may ministère la santé camion yi ma wax sànq camion bu ci nekk euh, gën gaa néew njëg bi daanaka juróom téeméeri million la.

Politique sur Cine TV. Sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. C'est un qui ci Cine TV